Nguudu Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf Sonko borom soppi système mujj naa soppi système am ubbi l'observateur njiital parti Pastef gi ne woon du wuy ji juge d'instruction bu huitième cabinet bi ko convoqué woon tey ji wax na démb ne dana wuy ji finalement yéen kaay bi nañu ab déclaration la def démb ci guddi fala waxee ne dina wuy ji fa la waxee li tax mu nar a ji nee na ay avocat ñoo ko ne mu dem wuy jéeg mu bañ a dem wuy résultat bi benn lay doon te it mënuñoo taxaw naan ñoo ngi koy ñàkkante ak police wala gendarmerie bu lëmm ba l'armée bu lëmm Ousmane Sonko ci ne wuy ji juge dañoo dellu gannaaw ba bokk xeex bi dafa jeex xeex bi tàmbaleegul sax mu ne xeex la bopp lu ne mën nañ ko caa ñàkk waaye Macky Sall moom it mën na caa doxee ñàkk nguuram gi Ousmane Sonko ne suñu ñu ma te bu boobaa bu ñu ñëwee mën fekk résistance mu ne su ma résisté sax askan wi ñoom danañu résisté li koy firndeel mu ne mooy keroog juróom-ñetti fan ci weeru février bi ma leen woowee ngir ñu génn jàppale ma ñun ñëpp gis nañu ne yëf ya suur soit nañu Ousmane Sonko mu wex xàtt boole bi journal bi di Source A wax nañu ko député yee ci assemblée nationale te fare ci kujje politique gi ak ña ca langook non inscrit toll ci fukki député ak juróom-ñaar yéenekaay bi nee nañu saisir nañu conseil constitutionnel ngir ñu annuler levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko ndax nee nañu ni ñu ko defee jaarul ci yoon yéenekaay bi dolli ñu ci ne kii di Ousmane Sonko benn tànkam ma nga ca cité kër góor gi beneen tànkam bi ci des ma nga ca kaso bu rëbës Sud les économies ndax yàlla Ousmane Sonko nangu finalement dem wuy ji àttekat bi ci le quotidien kàddu Ousmane Sonko mu fay wax ne donte gëmuma justice bi it dem wuy ji le quotidien nañu li daloon dem si yàlla Xaadim Buso loolee la Ousmane Sonko di bañ mu dal ko dem di ko jëli ba far fa génnee ab néew Vox Populi nañu doxin wu ñàkk Pastef gi njiital Pastef gi doxe ne duma dem ba mu yàgg mu ne dinaa dem leeral na démb li ko tax a nangoo dem nee na ay kilifa diine ay avocat jox ndigalal wuy ji ay awakaam xelal ko mu dem wuy ji ay kilifa yu fare ci société civile géeg ci opposition bi ñaax ko ngir mu dem wuy ji La Tribune nañu jël na dogalub dem wuy ji juge bi waaye bu ñu moytuwul dana toog ca bureau juge ba ba jóg du fa ne mbuu baa mu ne fa mbaa libération mel ne ku naan ak lu ci mën di xew àllarbay tey ji àllarba la ju nara bari jalti-jalti ndax muy Ousmane Sonko di Ndeye Khady Ndiaye mi moom salon Sweet Beauté ba coow la amee woon ñoom ñaar ñëpp war nañoo janoo ak juge tey ji Ousmane Sonko ci xët mu njukk enquête dina kay mu fay yëpp complot bu ñu def te Macky moo nekk ci ginnaaw saka nocc ngir bëgg koo sànk te jubluwu ci dara lu dul bëgg rajo turu Ousmane bi waral coow li ba léegi ñoo ngi koy soog a gis ci géopolitique bi Moussa Sow coordonnateur COJER ne Macky Sall xamul Adji saar ci aadama xamu ko ci awa bu dee am na ko xam Adji saar ba ñëpp xam ko moom Ousmane Sonko la moom Ousmane Sonko moom la ñuy tuumaal ne moo xam Adji saar biir ak biti